nag moom moo teg président fi mu ne. waay xëy na loolu noonu par les armes. moo teg euh, Assimi Koïta euh, capitaine Traoré. Euh, Tiani Niger exactement. Mm. yooyu noonu yëpp. idéologie panafricaine bi nga xamante ne moom moo ko sous-tendre mm. moom moo ëpp doole donc kon lii mëbëtu président Diomaye mooy Sénégal ca kaw Sénégal li muy mën a amee euh, euh, système de santé système judiciaire système éducatif lépp bu performance loolu ñun ci ñun la dépendre te dañoo jug pour loolu noonu am nag léegi li waraloon euh, visite bi muy affaire u vaccin waa man nag loolu te tee na sama xel saay ah. xam nga tubaab dafa saay saay man euh, wax dëgg yàlla surtout wàllum vaccin yeeg yu ni mel wóoluwuma leen ci dara. man loolu waaw man moom wax dëgg yàlla mon intime conviction mooy wóoluwuma leen ci yooyu noonu surtout nag bu ci turu Bill Gates duggee dafay gën a teye teyati sama xel. Bill Gates et Melinda. waaw kay yooyu bu ci duggee man sama xel day gën a tey mais daal. Mm. Mm. ak lu mënti am. président Diomaye wóolu nañ ko teg nañ ko ci bopp réew mi formation politique bi mu bokk ça toujours prôné le nationalisme. le patriotisme mais aussi le panafricanisme ba ci waa FRAPP bi nga xam maa ngi gis Daouda Gueye bi ci bokk nii may wax yow mu ngi yónnee benn communiqué boo xam te ne xam naa waa FRAPP ñoo ko signé mhm. ñoom li ñu wax mooy pour la souveraineté monétaire et le retrait des bases militaires françaises nous devons aller jusqu'au bout effectivement euh, moom ni mu ko jàppee mooy le FRAPP continue son appel à une mobilisation révolutionnaire pour aller au bout de ces campagnes pour la souveraineté monétaire. Mhm. France dégage du franc CFA et base militaire française dégagée. Tout à fait. tout à fait. Euh, c'est ça loolu rek Daouda Gueye maa ngi koy euh, nuyu au passage il a parfaitement raison c'est-à-dire sunu objectif c'est d'être souverain sur tous les plans Euh, la question du franc CFA bi muy euh, évoqué. Oui. Effectivement, euh, le, le le le candidat Ousmane Sonko dix 2019 en avait parlé. Mm. Le Pastef ku nekk xam na ci position man ku nekk xam na ci samay position Daouda Gueye euh, lii mu wax ni c'est la logique bi normal ci frappe nga xamante ne mu ngi nekk front pour une révolution anti-impérialiste. Mm. Alors donc euh, l'impérialisme aussi li koy symboliser le franc fa ci la bokk. Mm. les base militaires yi nekk fii ci la bokk donc l'objectif à long terme oui. c'est que ñu départiru ci tutelu loolu yëpp mais dama ko dama ko dama koy faral di wax hmm. euh, système bii nii nga xamante ne moom lañ songu ba daan ko le 24 mars passé mm. pour nga dijjati ko nag du doon benn jour système bi déedéet lii Guy Marius Sagna di wax ni fal nañu njiitu réew tànn na ab premier ministre waaw teew système baa ngi fi parce que système bi du benn fan nga koy dijjati système la boo xamante ne ñoom ison ont euh, bi ñu koy euh, tabax. Hmm. war na ëpp siècle depuis l'indépendance ba tey deux mille 2024 64 ans système boo xamante ne année yooyu yëpp lan ko lan ko suuxat du da ñëw rek di jëti ko noonu step by step la. Hmm. nee naa lu mbirum fugg du mbirum populisme du mbirum xët-xët xel la parce que xel moo ko defar. Ah. système boobu noonu xel moo ko defar donc kon li koy dindi du ay du ay du ay du ay xataraayu. xel la tamit xel boobu tabax ko xel boobu moo war a tabaxaat beneen système muy anti système bi. Mm. donc kon loolu noonu boo ko mënee rek jëw jël ko affaire u xadar jël ko affaire fugg. Mm. du demee noonu. donc moom moo tax même euh, les les les les les accords militaires la mm. moom moom moo waxal boppam de rocc moom moo wàññi boppam. ba léegi ñun agir aguñ. waaw wàññi wala. agir aguñ ci wàllu formation. ba léegi agir aguñ moom moo commencé kii parce que euh, le président Macron il essaie de s'adapter Ah. mais je pense que ni son objectif c'est comme l'objectif du de de ses prédécesseurs hmm. euh, général de Gaulle les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts. intérêts alors donc lui il défend ses intérêts nous aussi on défend notre euh, nos intérêts hmm. suñuy intérêt man nee naa base militaire française amu fi njëriñ lan lañ fi def luñ def li tax Mali dañ cee am responsabilité oui hmm. parce que bu ñu demee ba ne euh, armée malienne mënatul dugg dans le nord du Mali ki daal Mopti Timbuktu jëm kaw sans escorte de l'armée française après def benn accord d'Alger boo xamante ne man jàpp naa ne dafa doon un statut spécial à à à à l'Azawad kon que armée française coow li coow li mooma. Mm. la xewoon euh, Libye. coow li coow li mooma. Centrafrique. mën naa la citer presque Afrique fépp fi nekk conflit euh, ma nga kon moom moom bu nekkee foofu noonu teew dëkk yooyu di nekk en conflit alors que moom nee na armée pour sécuriser la kon kay raté na vocation Sénégal nag ñun yàlla def na jàmm alhamdulilah on n'a pas besoin de l'armée française donc l'objectif effectivement c'est d'éradiquer ay ectare lañ fi occuper hmm. demal fële ci almadi 2 da ngay daw daw daw daw ba sonn ak hectares yi hectares la lan la ñuy def ci biir cité Claudel hmm. euh, les bases nga foog ne ñun suñu suñu armée soxlawul terre yooyu sax d' abord waxtuma ak suñu population kon donc effectivement Daouda Gueye a raison de dire que ni l' objectif c' nañ dem et pour la souveraineté monétaire aussi on a jusqu'au bout et, et pour la souveraineté monétaire mm. France dégage san sa euh, France dégage waxul ak France waxul ne ñun dootuñu demati France waxul ne anti-français boobu non non ouais. on c'est-à-dire mu ngi koy préciser Daouda Gueye sentiment anti-français c'est une question sentimentale ñun nekkuñu ci émotion mm. nekkuñu ci émotion. Hmm. ni mu doon gis nga tey jii li France def Afrique bu ko Grande-Bretagne bu ko Russie bu ko Belgique bu ko keneen defoon Afrique yi nii lay taxawaay donc kon problème bi ñun amuñ problème ak France. Hmm. amuñu problème ak kenn xam nga lan lañ am problème. ku ñu noot loolu la ñuy bañ. lii euh, France di def Afrique hmm. bu doon africain moo ko def moroomu africain am ñu ne ko waat Afrique dégage bu doon kenn moo immiscé wu ci suñu gestion monétaire dinañ ne ko dégage. mais dégage boobu noonu waxu ah bon c'était une communication de jeunesse quoi kii dafay accompagner un peu de fun mais en réalité l'expression dégage noonu bu ñu ko jëlee au sens péjoratif génnal suñu conseil d'administration ñun mën nañ administrer suñu bopp loolu kese la c'est pas compliqué du tout pas Ousmane donc kon tey jii nii les lendemains euh, des relations Sénégal-France hmm. président Macron moom comprendre na ko jàpp naa ne comprendre na ko. Mm. et il essaie de sant d' anticiper il essaie de s'adapter yaa ngi fàttaliku. c' était euh, sur euh, conseil du député euh, Bruno Fuchs. oui euh, sur le sommet France-Afrique ak ni mu demee woon par rapport avec des activistes et des jeunes yu ñëwoon en, en face du président Macron. je pense que Bruno il est toujours candidat sax euh, au niveau des de l' assemblée. Oui. Euh, quelqu'un bu qui connaît l' qui connaît les relation entre euh, la France et l'Afrique mais di ci jouer rôle yu am solo mais aussi très nationaliste parce qu'il est français euh, donc euh, candidat euh, ci élection yooyu noonu ñu ngi koy souhaiter euh, bonne chance mais ñun suñu intérêt la ni euh, moo tax président Diomaye taxaw ci loolu la nekk ci loolu lay dox te loolu moom moo ko teg à la tête de de ce de ce pays là donc finalement demam bi retombé yi yu ci ëpp c'est positif te dafa am. Euh, euh, li ci euh, kanam raw luy gët. ah li ci kanam raw luy gët. nee naa la France ci boppam dootul ñu traité nam ñu daan traité Macron ñaari loxo la jox sunu président de. waaw ñaari comme doon diri ñaari loxo la ko jox. parce que xam ful la mooy jaay Dakar te France ci boppam. xàmmee na euh, ñi nga xamante ne ñoom la war a traité ak fulla ak fayda gis nga bi euh, Rwanda génne ci euh, langue française bi dugal. ca lañ ko joxee ca lañ ko joxee francophonie fulla mooy jaay daxaar. Mm. te foog France ak ku mënti doon xam ni Sénégal fi mu toll nii màgg na c'est un peuple mature. bi mën na exiger li mu bëgg. ba pare exiger ko ses dirigent ses dirigeants loolu moom moo tey teg. président Diomaye foofu noonu. et je pense que ni ils n'ont pas d'autre choix que de s'adapter ci li nga xamante ni mooy l'aspiration du peuple sénégalais également seeti l'ancien président également Abdou Diouf nga yaakaar ni dajewoon ak moom lu muy doon expérience vécue. Hmm. bu mu koy jëriñ ci ci la ci laa gisee beaucoup de. beaucoup beaucoup de réactions la euh, par rapport ak la présence de. ah Cheikh oui, Gadiaga oui. Euh, et l'autre là j'ai oublié son parce que du ma ko du ma ko xam ñooñu duma leen di suivre bu baax ah, mais euh, d'abord pour évacuer ça xam nga euh, Cheikh Gadiaga euh, il est ami à la famille Diouf ah. papam c'était un gendarme à la présidence Pedro Diouf Yacine la famille de Abdou Diouf ñu xam la parce que papam gendarme la woon ci biir pare nekk collaborateur du président Diouf donc kon kooku noonu boo xoolee am na foto yoo xam ne génnul ci biir kër ga la. Ah. boo xoolee ni mu toogee ci biir kër gi sax xam ne se un ami de la famille. de la famille donc kon donc présence am foofu noonu ba tax nit ñi di ju jur ay interrogation interrogation man awuma ci euh, problème d'autant plus que Cheikh Gadiaga c'est un sénégalais. donc président Diomaye président am la. Hmm. comme ni mu doonee président wu.